arbitre bi sifflé na premier combat de la soirée ngi noonu ñaari xale yi jàppante nañ xaaxaam ak Arce 2 xaaxaam Arce daw na jàpp ko ñoom ñaar jàppante nañ xaaxaam ak Arce 2 ndeysaan ñoom ñaari xale yi jàppante nañ arbitre nee na prime rek ñu daw jàppante ñoom ñaar ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu Arcel 2 ak xaaxam ndeysaan Arcel 2 ak xaaxam ndeysaan Arcel 2 moo wan ginnaaw xaaxam Arcel 2 waaw xaaxam ak Arcel 2 marché 2 ak xaaxaam ñoom ñaar ngi noonu xaaxaam a ngi dóor ay uppercut ci suuf xaaxaam a ngi dóor dóor na Arcel 2 nga koy jéem a tëru xaaxaam Arcel 2 Arcel 2 am na ngemb mbokk yi xaaxaam moo leen mujjee woon ginnaaw noonu ngemboo ngemb lu weex li Arcel 2 moo njamboo njamb Lagos di tent bopp ñoom ñaari xale yaa ngi noonu jàppante ey journal Assane Ndiaye la Baol production Arcel 2 ak xaaxaam caxabal na ko oh! xaaxaam daan Arcel 2 jël bu rëy oh! xale bi daan na ko ay waay leer na jël bi rëy na xaaxam daan na ko oh li mooy làmb ñaari ndamay dugg waaye benn ay génn sëñ Basiru xale yaa ngi noonu Dagmol. ñoo ngi lewaatoo mbokk yi si Dagmol cong amagul xeexaguñu bëreeguñu xale yaa ngi noonu ci digg géew bi bëre leen bëre leen Assane wooñu fi tey gan gan bi dox ci diggante Bébé ak Fourrière Fourrière bu Grand Yoff Mool 1 abit bi atte na bi abi bi sifle waat na ci diggante Siteu bu njoon ak mool 1 wala boog mool 2 Siteu cokkaas na léegi doo gauche mool ne tekk di ko déglu Siteu day léewtoo bu neex mu dagg léewtoo bi demee wet dellu mool ne tekk di ko topp Siteu ak mool mool nga mool daw na jël tànk Siteu bi jël na ko da koy tegal 16 tegal na ko daan na ko daan na ko vite fait bien fait combat baa ngi noonu Mawla un daan na Siteu bu Njoon Mawla ngoog noonu mbokk yi di dem ci ay supporteurs am Mawla noonu di dem eh Siteu da ngaa nalaw. ñoom ñaar Tapha Leer moo ñu féetee à droite ndigal moo ñu féetee à gauche ndigal moo nekk école de lutte Doudou Baka Sarr Leer moo nekk équipe Bada Dione Leer ndigal Tapha Leer mbokk yi moo takk moosa bu xonk bi ci bopp bi numéro 2 ndigal moo féete à gauche ngemboo ngemb lu vert bi ñoo ngi liwaatoo dafa leer ndigal ndigal a dox ci kawam dafa leer même na léegi waaye demul mais waat na moom dafa leer dafa leer ndigal <laughs> ah jàppante nañu dafa leer jël na ko leer jël na ko oh, jàppante nañ jël na ko léegi jël bu baax ah ndigal eh ndigal ndigal ndigal leer ndigal dafa leer ñoo ngi jàppante ndigal jël na tànk ba ndigal lu muy def nii ndigal dafa leer numéro 2 ndigal dafa leer ñoo doon tëj suuf dafa ndigal quatrième combat de la soirée Assane woo ñu fii arène nationale diggante Bébé Diène Soumbédioune Grand Yoff Mbolo ndigal Tapha Leer numéro 2 Tapha Leer caxabal na léegi jël na ko caxabal na ko waa caxabalu mbir la wala biti Tapha Leer looy def nii war nañ la ndomba daan na ko daanu ah abit abit lan la lan moo xew sëñ Bass bu abit bi waxee lan moo xew ah abit lii lan la ñemewu maa wax day kase ah. bu ma waxagum eh, arbitre bi jox na Tapha Leer numéro 2 victoire bi arbitre bi joxe na victoire ah ah arbitre bi joxe na victoire bi jox na ko kooku di Tapha Leer nee na Tapha Leer daan ndigal waaye ndigal d'accordul ba léegi mbokk yi ndigal ndigal ndiga léegi noonu ci digg géew bi mbokk yi diggante Pouye 2 ak étudiant étudiant moo nekk Bawol mbooloo Pouye 2 moo de Fatick Pouye 2 na léegi benn nen abit baa ngi woo di wax ak ñoom ñaar abit baa ngi noonu dugal leen protégeant yi moo ngi leen wax li làmb nangu ak li làmb bañ ne leen kat api jël la mooy naa leen kat api jël la kuñ doo nga daanu yaa ko abi baa ngi laaj ay sisam maa baay jili baay jili nuyu naa la Ouzin maa ngi lay fay di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi seetaan wasaare lamb combat baa ngi noonu dox ci diggante étudiant ak Pouye 2 mu yéen étudiant lu muy def nii Pouye 2 ña ngay xeex Pouye 2 étudiant Ouzin noonu la làmb ji demee ñoom ñaar ñaari xale yaa ngi noonu Ouzin gisee ñaari xale yi. étudiant doo bi mu doo léegi baaxul fàq na ko fàq na ko moom étudiant fàq na ko moom fàq na xeex bi xeex léegi baaxul boo xoolee rëpp na sigiwaat ñoo ngi jàppante ñoom ñaar. xale yi dañuy bëgg a teel a dajaloo Ousseyn ndax làmb fi mu toll ni boo ñëwee day jot nga liir sa adversaire xam lu mu indi étudiant gis nga mu ngi koy jéem a jeexal combat bi boo xoolee nag étudiant moo ëpp volume waaye xaw ma ba xam moo ëpp doole puy deux mi muy bëreel ndax ñaari xale bu ñu tolloo fii fi mu toll nii ñoom ñaar ku ci nekk day bëgg a wane jëfi xale ngir daan teel a libérer say ndax daa bokk ci lim bi nag maa bokk ci combat bi gën a gaaw ci bi gis nga Pouye 2 jàpp na ko jàpp na ko Ouzin jàpp na ko tegal na ko 16 léegi moom étudiant waaye sottiwul Pouye 2 étudiant bàyyi jili kàddu yi rafet na étudiant étudiant koy jéem a bëtt léegi waaye Pouye 2 daa bañ angle ba fatt étudiant Pouye 2 Pouye 2 rokkas na léegi moom Pouye 2 étudiant nga tàkk tekk di ko déglu moom étudiant takkaay bari na Takay bay na boo xoolee moo ngi jugal Bawol mbooloo eh Pouye 2 Pouye 2 looy def nii étudiant. daanu na Ousseyn étudiant def na 4 appuis. daanu na ñaari yoon. waaw waaw Pouye 2 daan na ko daanaat ko. première chute ba 4 appuis am na daanaat na ko xale yaa ngi noonu daal bëre étudiant daa force combat am lamb du noonu sa adversaire da ko koy cër bi mu moom. est ce que foogu ne moo ko ëpp doole. Pouye 2 du loolu lamb mbër bu demee ba jël sa avance gëm na ni moo la mën ku ne mën naa daan sa morom mbëri nañuy joxante cër. di respecter seen adversaire yi ñuy bëreel. làmb jaa ngi noonu. Pouye 2 daan na étudiant. étudiant jugal. baax na. arbitre ngi consulté wu di xool ay jugeem laaj na juge yi laaj na ay jugeem laajaat na beneen juge ba nee ko pare na. laaj na Bouka laaj na Dimle 2 arbitre bi sifflé na Bouka Dimle 2. ndeysaan bugaa ngeen jàkkaar lool Dimle 2 moo leen wan ginnaaw jokkaas Dimle 2 jokkaas na ngi dox ci daw na jëli ko bugaa daw na tëru ko waaye Dimle 2 da koo gis ñoom ñaar jàppante nañ ñu ngi ndengeñante Dimle 2 bugaa bugaa ñaari omi jugaat na ko daan ko yoo bugaa daan Dimle bugaa daan ko bugaa daan Dimle xoola coach ba Mame Less ak bëgg ndam ree na xol ba sedd na Mame Less moo bëgg ndam ay waay mbiram daan na xoolal du koo xiifoon du koo gëmewul Mame Less ak bëgg ndam bu mbër amee ndam boo xamee tey gileem la lay jëlal xol bi sedd na lay sànn daa sonn ci mbëru parcelle mbooloo yi Mame Less naag mbër bu ne ànd naag Garga Mbossé ba muy bëre mbapat ba nu muy duggee arène ànd naak Franc di ànd moom tey gis nga ka mu indiwaat lii wan ni làmb rek am solo gis nga ba tey du pare ci consigne yi de après combat ngay gën a daj Mame Less di lay di la conseillé ba ci biir kër gi <laughs> ay Mame Less ba dem xoolal njàpp bi ay njàpp bi ak a soxor ay ca Mame Less waaw waaw <laughs> xale bu 18 di dox di njàpp ndeysaan Pape Less a ngi noonu génn na dem xam nga ni gis nga xam nga ni sama image du la tey njàpp soxor ngay njàpp ma lay jël non li ngay njàpp yéen nee naa Mame Less ndeysaan daa sonn ci mbëri ku ànd ba muy bëre mbapat ba ni mu duggee arène nga ànd ak di ko jàppale di ànd Yanda di ko jàppale Moussa Dioum nekk sawet nga di ko jàppale tey nga indi xale bii bu kaam yi nga lu mu wane lamb ji jeex nga koy gën di conseillé nee lees moom du bàyyi da lay jàpp ba ba prolongation xalab njaago la fi mu toll bu ma ko làkkee bu taakulu mu ne ma bulon bu ma créé dara bañ yaakaar ne du lii rek ma génn leneen parce que dama am gëm-gëm ci li may def samay mbër wax naa leen ko waxati leen ko kenn du summee ko ñu ne acam géejawaay laay jóge di entraîné waa parcelle depuis 1987 ba léegi sama oto laay taal di dem parcelle du benn mbër bu ñëw ne ma coach su ma naa ma na ko defal 20 000 yi gasoil wala defal 10 000 yi gasoil kon ngoro ma fa téye nee naa la sama maqaama dépassé na làmb làmb ji lijjanti naa jàngoro ji faj ko ba combat yi waxuma leen lan moo nekkoon jàngoro yi. tegal sa loxo foofu. déedéet dama koy may en direct wasaare. non la ko mayee ngeen wasaare ko ci réew mi te yéen doo leen fëgg a ngeen ñëw ne saraax. saraax ci biir kër gi la ñuy def maam lees faw ñu toog waxtaan wala ñu jàkkaarloo janoo nga may ma benn temps ñu waxtaan. bu ma nekkee ci làmb damay nekk beneen pression nekk beneen nit ndax làmb dafa métti maam lees ku ko xam-xam na dëgg lu muy wax ci làmb dëgg guy jëriñ doomu aadama yi la te damaa bëgg dëgg gi jëriñ aadama yi man bu ma indee dëgg kooku di dox si loolu ba moo tax buñ ma soxlaa wala ku mel na yow soxla ma ñu war a wasaare wala toog ay xale yu ndaw man di bëre xam nga mag ñi boo bëggee dëgg-dëgg sànn nañ karawaas ba pare am nañ kër am nañ soxna yu rafet am nañ 4x4 yu rafet oto bu ci mbër war boo xam ne VIP nga 100 million lay jar wala 60 millions nga tabax villa bu rafet xale yu ndaw yi seen combat di metti ma xam ko man sa mbër yi dem nañ ba pare xale yu ndaw yi am gëm-gëm di entraîner ku di entraîner bëccëg donc bu ma leen jàppalewul dimbal leen comme ni ma def mbër yi mag yi man damay doog naafiq te naafiq doxul sama yaram man ci dëgg laay dox kuy ànd ak man ci dëgg ngay dem kuy ku bëgg ma wétti leen tamit jàppale la boo ma samay conseil boo ci doyee bu la doyee nga xam ne lépp dëgg la man maa la ko wax léegi nag combat yi boo bëggee ñu waxtaan xale yi ndaw yi càppaacul yi da ngay toog maa ngi ñu jàkkaarloo. kañ lay doon. heure boo bëggee. jeex na bëgg ngaa dégg-dëgg. boo ñëwee ci Weur Sàmbaar dëkk ci Liis Ndiago dëkk ci Boka mii bii mooy cinquième combat am cinquième victoire dama ko fonk tegal foofu sa loxo. <laughs> maam lees xoolal njaam moom njaam way rey <laughs> waaw. Yeah, Bila. combat bu neex la arbitre bi di waaj a siffler diggante xale bi nga xamante ne mooy alliance Balde ak caatu rëbës alliance Balde ngeen jàkkaarloo caatu rëbës moo la woon ginnaaw Ousseyn arbitre bi siffler na. lamb ju neex baa ji lii ñii seen séance de contrat dafa neex. Euh, alliance Balde non non caatu rëbës caatu rëbës alliance Baldé da leen wax ji ju am solo combat bii baa nañ ko bàyyi xel ah en tout cas daal dox na ci kawam plaqué nañ ko jàpp nañ ko fiñ ko jàpp sori na caatu rëbës jàpp na lu mu bëgg da koo bëgg a ëñ waaye alliance Baldé bañ na rasu na ba bañ ndeysaan ëññ na ko ndengeñente nañ ñoom ñaar ndeysaan Ousseyn ñoom ñaar nga yaakaar kan la ci bëre bi gën a bët ba bëre bi caatu robas. na ko moo taxit ëñ na ko la ko Ousseyn waxoon daan na ko caatu robas daan na alliance Balde caatu robas daan na alliance Balde la ko ci bëre ba am la bëre bee a bëpp. booy xool ñoom ñaar sax bokkuñu booy xool kii di caatu robas booy xool moo gën a entraîné physiquement alliance Balde kenn xamul lan la. Alliance Baldé chaque jour bu ñëwee état bi muy andi moom lay andi amul changement man daal comprendre alliance Baldé te dafa am cër ci làmb mais ku war a boppam la moom moom alliance Baldé. daa mel ni tur bee gën a siiw bëre bi. waaw tur bi tur bi fa mu yegg bëre bi yeggul foofu war na xoolaat boppam xoolaat ginnaawam defaraat boppam bu baax a baax caatu rëbës mii war nañ ko bàyyi xel xale boo. barki démb moo njaay la mujjee bëre Ousin caatu rëbës. caatu rëbës xale la daan ne ci yoon. siyaar la fay na la. bëre bi façon bëre bi bëre ak alliance Baldé lal la. tey waruma juum tey bu su ma ñëwee ànd ak dara am na lu tax. barke Serigne Touba dama nekk xale gaa yónni ma tey waruma billaahi waaye bëre bi bëre bi mën maa expliqué ni ngeen bëre. moom moo ma njëkk ci làmb damay mbay sens waruma ko manqué dama ko jox cër bi moom ndax man à tout moment su ma ko jàppee làmb ji jeex ak Serigne Touba di sant waa Ross ñëpp di sant ñëpp aw ma ki seen naa ñëpp daal. abadan yaatal noo ko daane noo mu ngi leen wax li règlement bi nangu ak li mu bañ saan dox ci diggante su suqi saaf ak capitaine saan sukki saaf mu nga nekk écurie bi nga xamante ni mooy euh, nu mu tuddati jëf soog nekk la nekk ke capitaine mu ngi nekk caarey Cap Vert arbitre bi sifle na sukki saax moo ngeen jàkkaar nool capitaine moo la woon ginnaaw Ousseyn. capitaine lañ jàkkaarloo sukki saaf moo ñu ginnaaw. capitaine ngeen jàkkaarloo sukki saaf moo ngeen moo leen woon ginnaaw arbitre bi sifflé moo ngeen moo ngeen lu weex li moom capitaine ah lii lu laaj bàyyi <laughs> jat la wala lan la. xamul lan la bàyyi ji ku nekk sa feem. sukki saaf a ngi noonu mais sukki saaf sukki ginaar la wala lan la. moo tax ngeen lu weex moom sukki saaf. déedéet capitaine capitaine moo ngee moo ngeemul weex sukki saaf moo ngee moo ngeemul xonk li bàyyi ji lii ndaysaan sukki saaf ginaar laa ko xam wala ci ah. pison Pape Diouf a gën a sukki saaf saqami ginaar am na solo sëñ Bas ak a bëgg ginaar ay bu ñëwee lekk doog laa i gis man bàyyi ji lii ndaysaan boo taxee ñoom ñaar ngi noonu diggante capitaine ak sukki saaf capitaine nag foo dem bërëbu liggéeykaay boo dem am na capitaine capitaine boo ko déggee booy njiit ndeysaan moom capitaine sukki saaf nag kenn bañu ko ndax ginaar bu ñu sukki saaf ko ba mu ñor def ko li mu war a àndal koo ko jox mu jël dama koy lekk bàyyi ji lii ah, dama koy lekk ba seew ñu ya lekk ngay wax Ousseyn kenn bañu dañ koy lekk ba seew ñu yaxe bàyyi ji lii waaye est tey capitaine tey dina diriger fii ci diggi géew bi ndax sukki saaf mii ma gis dafa décidé dafa décidé bàyyi ji lii ñoom ñaar daal xam naa ne ñu ngi léewaatoo Ousseyn ku ci nekk mu ngi déglu som morom diggante sukki saax ak capitaine ña ngay lewaatoo Sukki Saaf euh, tànk loxo tànk càmmoñ la jiital kii di sax euh, sax euh, nu mu tuddati capitaine moom it tànk càmmoñ la jiital ñoom ñaar ku ci nekk garde normal la te ñaari garde normal Ousseyn fu mu amee ci làmb xeex ba dina neex dina jaar yoon. day yomb bàyyi ji li dóoral ma dóor lay nekk ku gën a suivre laa la wax Sukki Saaf mi ma gis moo gën a concentré wu bàyyi xaw ma nag lan mooy am. waaye sukki saaf mi moo gën a concentré wu ñu fàttali leen ko bi spécial bi la ci dox ci diggante Fourrière ak Bébé Diène combat spécial bee nekk noonu. leen nga ñëw ci grand combat bi. Eh, baa jili spécial baa ngi noonu ci diggante Bébé Diène ak Fourrière. mooy grand combat bi yëngal nañ léegi stade stade bi ñaari xale yooyu kenn du ñoom. Ousseyn Sukki Saaf ak noonu ak ki nga xamante ni mooy capitaine ña ngay lewaatoo ñoom ñaar. ñaari xale yaa ngay leewaatoo Ousseyn li li li président wax décret bi nga xamante ni wàcc na sànq lépp loo xamante ni manifestation la dañ koy arrêté ci réew mi ba jummi jamono ban yëg-yëg nga ci am ak noo ko gisee. baa ji ñun est-ce que attan nañu loolu. ah est-ce que ñun attan nañu loolu ba pare. ñun ñuy dund làmb. boo xoolee ñun ba ji senegal amuñu dara bu ñu tëjee frontières yi. arrêté élèves yi ñu bañ a jàngi est-ce que dinañu ñun bàyyi ji lii. ñu arranger waaye nag situation oblige ndax Ousseyn jàngoro boo xamante ne day wàlle te mën naa yóbbu bakkan yu bari maari di taali ah xoddali ko balaa ngay lakkle rek. a ah, man da damaa jaaxle fi mu toll nii maa ngi téye samay loxo sama sama dama damaa croiser les kenn mësul gis nii li am ci làmb ji boo ñëwee téye sa bopp. booy def ñoo ngi naan ma bàyyil jiili ko bu yàgg. léegi <laughs> naa ndey si kay barki démb balaa la Ousseyn maytul jiili ndax ci mbër yi lay dugg fu ne lay dem coronavirus da bu yàgg ta yëgoo ko. yàlla ñu ci yàlla musal. maa koy musal ci mbooloo mi jullit. maa ngi nuyu moom day su kay nee na ma dama laa bëgg bàyyil jiili xam naa ne ko naanu bu yàgg waaye dalaa bañ dalaa bëgg wàllu dong waaye dinaa jël naa sama matukaay nuyu ma ko bi mu egsee ba léegi. sëñ Bas la ma wax sànq boo gën a dee nee na ma jiili suba corona woon dama naa la yóbbu ba nga ba ba hôpital ba doog laa wax coronavirus bi jàpp na ba waaye yàlla bu mu jàpp kenn ñi nga xamante ne jàpp na leen yàlla na suñu borom saafara ba ñu wér ak jàmm ak salaam suñu mbokk internet yi képp kuy seetaan wasaare làmb ñii nekk Italie ñii nekk France ñii nekk Espagne ñii nekk États-Unis yàlla na leen suñu borom defal jàmm def fa xéewal ba jàngoro bi nga xamante ni ñu ngi ko fay dégg suñu borom saafara ko ba ku ci nekk dellu sa liggéey delluwaat ni nga ko daan defee ndax Sénégal li wolof naan Ousseyn euh, picc nga ca kaw waaye xel maa nga ci suuf ñoom ñu nekk Europe lépp lu ñu liggéey rek dañ koy yónneewaat fii ci réew mi kon ñooñu war nañ leen a ñaanal wér ñan nañ leen a ñaanal gudd fan ñan nañ a ñaanal jàngoro bii nga xamante ni mu nga fa mu mu moytu leen ba yàlla bu mu leen dal ba ñim ca dal yàlla nañ ci we li mooy umpe. yàlla nañu ump ñun nañu ci dégg dong di doy waaye boo xoolee kii di capitaine. capitaine mu ngi bëgg a gaawal combat bi ci kaw sukki saax. sukki saaf ñoo ngi lewaatu ñoom ñaar cokaas na léegi moom sukki saaf. combat bi nag boo xefee daa nar a yàgg. ah ñi ma gis nii. ndax combat gaaw na pare. ñi ma gis nii jógee ku ñu fi de bàyyi ji ak capitaine ñoom ñaar kan moo ci jël initiative dem jëli moroomam. song ko bëre dóor xeex daan dem ñibbi Ouzin daal xam naa ne làmb làmb la. lamb lamb la bàyyi ji li moo tax spécial bi tamit làmb la ndax boo xoolee kii du suki saaf ah capitaine dóor na ko léegi. dóor na benn percute ci suuf. dóoraat na ko jël na ko oh jàppante nañu jàppante nañu suki saaf a ngi koy ëñ euh, capitaine jàpp na capitaine jàpp na suki saaf suki saaf a ngi dóor suki saaf a ngi dóor oh, moo ngi cokkaas. na ko faqat ana faqat baa jiili. faq na ko faq na daan na daan na ko. capitaine faq na ko faq na mu ko def bi da koo da a busulu. capitaine daan Bas sukki saako daanu na. capitaine brise na. Bas doo sukki doo saako. capitaine bos doo ko saaf na ko oh. waaye ku koy lekk ma jaaxal oh. seen naa bébé na bébé Diène Fourrière grand combat ci desoon eh ñaari xale yi waa waa bébé noonu di waaj bébé Diène a ngay dugg si ñoom ñaar noppi nañ nag noonu di génn ci ci meekaayam may na benn bolok ma dem ci digg géew ba Bébé Diène noppi na fi mu tol nii ma ngay dem ma ngay woo ñi mu àndal cey làmb Bébé Diène a ngi noonu Bébé Diène a ngi noonu di waaj dem yor na sengoor ba teg na ko ca baat ba ay làmb lépp aar la Bébé Diène dugg kii de moom xam naa ni fi mu tol nii ma ngay dugg di wuti waaye xamut lu muy am ndam yàlla moo ko yor. fourrière a ngi noonu di génn jëm ci ci meekaay bi ma nga noonu ci ci meekaay ba ci géew ba la jëm ñu ngi koy jox dernier conseil ma ngay njaab am na mbuus buñ ko jox tàndarma la doon luñ ko wax da ngay yëy ma ngay sàqami dajji na mbuusu tàndarma bi moment bii nag day dem ci xare adversaire ma ngi ci digg géew bi di ko xaar. ree na may ma boo jël ay prière alil boo ma mayee ma jël prière <laughs> a ngay lekk tàndar ba sëñ Bas bu ma mayoon nga xam ne maay ndaanaan barki yonent bi ah. ndeysaan ba koy tàllal de may na ay waay may na ma ay waay tàndar ba may na ma waay ndeysaan prière may na ba ma ngay dem ndeysaan nee na ko maa bañ <laughs> ndeysaan ma ngay dem jox na ko sëñ Bas lay jox waaw waaw sëñ Bas fourrière a ngi noonu nee na maa bañ waaw waaw fourrière may nañu ku ne tàndarma ndeysaan ma ngay yëy may na ku ne moment bi ma ngay dem képp ku tiim ki fourrière di ko filmer may na la ci tàndarma bi jox na ku ci nekk ne la lekkal sëñ Bas làmb daala gi noonu sëñ Bas jël ma ak ma bi ah lii kuñ ko joxoon heure bi sa xel dem ci weeru koor nga téye sa tàndarma macha allah heure bii di dog Fourrière jox na ma heure dog tàndarma te wóoru ma ah tàndarma bi nag mu ngi doonu mbokk yi loolu mooy ña nga noonu ci diggi géew bi Bébé Diène samp na ay gàllaañ am na béjjën yu mu samp am na lu muy génnee ci saak bi ay butéelu saafara lay génnee ndaysaan Bébé Diène génnee na ko sotteekoo na ko Fourrière a noonu di nekk ci débat débam ñoom ñaar xolob Kayre ndaysaan bu sañoon jëlaat ay 18 ans dugg ci làmb Père Kayre champion la ci làmb tey indi na ay xale ay doomam ñoo war a bëre Bébé Diène ñu toll mënatul toog mënatul taxaw côté bu nekk mu ngi fay dem moom Boy Kayre <laughs> làmba ngi noonu de ndeysaan làmba ngi noonu daal xam naa Kayre xaw ma lu mu yor ci loxo bi lu weex la de Bébé am na lu muy joxañ Fourrière xool na ko ci Fourrière am na lu muy dóor dóor na ko ci xit bu lay dóor ma koy windeel dóoraat na ko ci beneen xiblo bi mu ngi koy windeel dóoraat na ko ci beneen xibla bi da koy takk ci ndigli ñoom ñaare ngi noonu waaye combat bi combat la boo xamante ni combat bu garaaw la Ouzin ñaari xale yu garaaw a ngi nii nekk ci digg géew bi muy Fourrière ak Bébé Diène Ouzin gis nga Fourrière simeeku na mais boo ko xoolee xam ne mu ngi ci état de forme bu garaaw Bébé Diène même chose ku ci nekk jox na combat bi àqam jox na ko gëdd respecté na adversaire am loo gis ci ñoom ñaar. waa ji làmb ji ñoom ñaar ñëpp làmb déclenchement la ci ñoom kii di Bébé Diène gëj dañ koo gis kii di Fourrière moom tamit moo ci dynamique bu garaaw mais Bébé tey ku war def attention la. kii di feu yaay la boo xamante ni ñu bari duñ ko umpule te daa ne ci yoon bàyyi ji li na kenn umpule ku ne xam na ne lim def ci lamb simple ak lutte avec frappe mais war na bàyyi xel kii di fourrière bàyyi ji li lamb ju lamb ju garaaw a ngi nii ndeysaan gis naa Zil ngay woote rek woo na Boy Kayre woo na bébé jën ndeysaan ma nga noonu lamb nag fi mu toll nii pindum teen la ku ñëw ci pind ah, wallum teen la ku ñëw ci pind ba ngay yem ah, waaw waaw teen la ku ñëw ci pind ba ngay yem xoolal ma ñaari xale yi ku ci nekk kii yor na xànc kii yor na sengoor kii jël sengoor bi teg ci baat ba kii jël xànc bi di ko jaarale ca kaw di ko jaarale ci suuf moom bébé jéen hey combat bu combat bu neex a ngi ni Ouzin ñoom ñaari mbëri nga yaakaar làmb ji dina am xeex parce que Fourrière ku ko xam-xam ni mbëru mbërëntaan la ci bëre daa mën a bëre Bébé Diène ku ko xam-xam ko ci mbapat xam ni moom it daa mën a bëre ñoom ñaar lan nga yaakaar ni combat bi noonu lay gën a gaawee wala lan mooy avantage Fourrière lan mooy avantage Bébé Diène Ousin Diop baa ji bi il faut am xeex làmb ji il faut que xeex Bébé Diène dafa nekk mbër moo xamante ne abi du souffle mu daw songu noo def mu sànni gauche droite ibbee ko te Fourrière mii moo gis noo def mu xeex ak Bébé Diène baa ji li xeex mënul ñàkk force la il faut mu am ci làmb ji mu mënuñoo ñëw rek jàppante duñ fi tardel dañoo wa a xeex bëre te nag ba ji li ku yéex doo gis jëll bi. ah en tout cas daal ku ciy mënti xeex na nga sàmm say tànk ndax Ousseyn wolof doon na picc nga ca kaw waaye xel maa nga ci suuf ñemente nañ trop ñoom ñaar. bëgg na wër mu bañ. Fourrière bëgg wër Bébé mu bañ. ña noonu ñoom ñaar tolloo nañ de. dañoo tolloo bàyyi ji ñoom ñaar ragal naa ne combat bi gaaw ñoom ñaar bu ñu ni ñu tolloo nii bés bu doole ci tollee noonu bàyyi ji di gis combat bu neex combat bu am bëre am xeex te gëm naa ne yaakaar man jottuma ne combat bu gaaw lay nekk. Bébé Diène de am na loo xamante ni maa ngi koy seetlu ci moom. muy combat yu bari. ndox du bàyyi yoonam bu arbitre ne prip day forcer adversaire am bëreeg moom. jéem koo daan dem ñibbi waaye mu ngi bëre xale boo xamante ne xale bu garaaw la ci làmb ndax Fourrière nee na ma Grand Yoff dañ maa yaakaar ma am fa cër moo waral ñu ne ma bu dul grand combat bul bëre looloo waral ñaari at bëréew ma combat bi doon grand combat moo tax mu ñëw waaye keroog boo gisee nii mu duggsee nga xam ni Grand Yoff am na fu ko teg mbooloo Grand Yoff gépp ñu nii tamit dafa nekk mbër moo xamante ne moom it mbëru gox la bu jugee Medina gi dañuy jóg ànd ak moom Soumbédioune dañuy jóg Gueule Tapée jóg ñëpp ànd ak Bébé Diène waaye Bébé Diène tamit combat bii muy bëre indi na ci supporter ñoom ñaar daal xam naa ne ñaari mbër lañ yoo xamante ne ay xale lañ waaye mbëru grand combat lañ Ousseyn Ousseyn xam naa ne ñoom ñaar daal ñaari mbëru grand combat lañ. bàyyi ji li nit ñi kenn moomu leen boo xam ne gis lii mu mobilisé nga xam ne topp ñu ko ci neen am na lu mu def ci làmb ci am na lu ñu yaakaar ci moom ndax boo xoolee Baye Djily Grand Yoff dafa manqué mbër Grand Yoff booy xool euh, mobile la fa nekk. Ndandi Fall Ndandi Fall ñoo fa nekk Baye Djily dem na ma nga Europe dem na boo xoolee Baye kii révélation la te làmb équipe bu nekk dem étape par étape étape te kii dafa bokk ci révélation yi nekk boo xoolee Baye Djily li mu mobilisé fayu ci kenn xaalis dañ koo topp ndax mën a bërëm ndax am fitam ndax am jomam waaye moo ngi tase xale bu coriace sama pël Fuuta bi. muy bébé Diène. muy ñu koy wax saa yaata yeetoo. wayal nañ ko ko sama xel dem ci Ahmed Ba Serigne Soubrette Diallo Dieng. kenn moom Ahmed Ba Serigne Souba yi. boutique bi nga xam ne bëgg bu lebal ñu. ak kan nangoo liggéey am jom. bok ci réew mi. trois ex li trois ex yi ci ñun. nga yi ci ñun Ahmed Ba. kenn moom Ahmed Ba sama pël bi. nuyu naa la siyaar naa la c'est awa booba parce que la ma mooy kan seeni souveraineté jàll jéeri ma ne ko waaw moom la c'est awa doomu papay awa booba ngoog buñ gañee Barça jooy rek moom amet oh, dootul jaay dootul jaay nee naa ko kii kan mbay juuf mbay juufa ngay tu ak mbay guy gi ànd kan ànd kii nga xamante ni moo dëkk rëbës ñu koy wax double moteur. bawal bawali la. ala yaa ngi noonu. eh mbay guy gi am na combat. làmba gi nii làmba <laughs> gi nii. boo tax daal làmb làmb ay bay ba siyaar naa la. cameraman bu mag bi kenn du moom. Ouzin fi mu toll nii. làmb dafa doon loo xamante ni dañ koo bëgg. làmb suñu sport la. làmb waaye ko wax mu ne maa ngi leen di seetaan làmb jéego yi ngeen di def. jëm ca kanam gis naa Ouzin liggéey bu rafet bi gis naa sëñ Basiru jiili nag moom dongo la léeg gis nañ ko waaye lépp rek xam naa ni yéen la wolof nee na doolay jën ndox doolay waykat public waaye doolay wasaare làmb entente bi ñu am suñu biir la déggoo bi ñëpp doon benn lan mooy secret wasaare làmb baa jiili liggéey kase ndax boo xoolee wasaare bi mu yegg seeg léegi yàggul waaye maaka day emprunté ba ku ne xam na làmb képp kuy dund làmb ku nekk boo bëggee information wasaare làmb ngay dem kon ñu gërëmaat équipe bi yëpp di gërëm Baye Bas di gërëm Adama Baye Djili Ousin Fatima ñëpp ñoo leen di gërëm di gërëm nag borom bee bi ñoo koy nuy di ko siyaar bu baax lépp moom la. borom États-Unis d'Amérique borom États-Unis bu ñu ko waxee rek xel dina dal moom dana xam bopp waaw moom nee na buñ tuddu tudd tur nee na bés boo leen tuddee tur ma arrêté kon buñ tudd tur ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax a baax di ko siyaar di ko bégee Baye Djili di wax làmb dafa am lu muy représenté fii Baye Djili boo xoolee sport yi bari na mais ñun làmb la ñu am te ñu ñoo ko war a mën a suuxat puus ko mu jëm ca kanam moo tax ñoo ngi ciy jàpp ak Wassare Lamb di ci def lépp lu ñu mën di wax ga ay bu ñu fàtte di abonné ni ñuy abonné ndax lépp lu ñu bëgg a xam lu xew ci làmb na ñëw Wassare Lamb fii lay xewee li si Papa Lamine wax fi la muum li xoyom xoyomee waaye ma dooli leen ci fii la glace gi di formé bàyyi ji li fii lañ koy yëngalee gësam ay xale fi ne di foo ñu koy dundee di foo ñi ñuy seetaan xam ne ñii ay xale lañ waaye dañuy foo foo bi nag folo boo xamante ne dañoo yar ci yar ak teggin ak dal lépp rek ngir bëgg askan bi lépp lu ñu leen di digtal mu doon lu rafet mu doon lu image yu nice mu doon loo xamante ne chaque jour dañ may laaj seen image yi dafa set seen image yi dafa leer seen image yi lii lan mooy secret wasaare mu man leen liggéey rek ak am ñoo xamante ni dañoo jël lu toll nii jox ay xale yoo xamante ne macha allah fa tabaarakalla xale yi daal ñu ngi noonu Ousseyn Diop. bàyyi ji ñu liggéey rek lañu xam foo xool fu làmb am dem nañ fa bàyyi yi Baye Bass bàyyiwul Mbour Baye Bass bàyyiwul Fatick fu la am amu dem fa man nee naa mooy mooy mooy bis bi Dakar dem dikk kenn du moom. Georges Demba la laa ko tuddee chaque jour rek bu départ sa jiili demal arène nationale maa ngi dem Joal maa ngi dem Fatick ma ne ko Georges tey fan la mu ne ma tey Dakar des fois ma ne ko Georges foo jëm mu ne ma dem na ma ne ko demati na waaye lépp liggéey la rek dem nañ Gambie dëkkal leen la fa am dem nañ Passy dëkkal leen la fa am dem ngeen Njaafat. dem nañ Thiaga dem. dem nañ Mbour. billaay tourné Yaxya Diop yi ki ne ko. moo taxit amateurs yi daal ak téléspectateurs yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm da di leen wax na nag cloche bu bi nañ koy faral di bës abonnement bi buñ ko fàtte nañuy faral di abonné. laal bi. ñoo ngi présenté arbitre bi ngi noonu présenté na ñaari mbëri Ousseyn. ci diggante Fourrière ak ki nga xamante ni mooy bébé Diène Baye Djili làmb ju neex a ngi nii Baye Djili bébé Diène a noonu Fourrière am na lu la la Ousseyn waxoon rek mu ngi noonu. Fourrière teg na benn sengoor jéggi sengoor bi wutali ki nga xamante ni mooy Bébé Diène am na lu mu jël sànni ko ci xarante tànk Fourrière yi sànni ko ci kaw cey làmb ñaari xale yaa ngi noonu arbitre bi ngi leen wax li règlement bi nangook li mu bañ arbitre bi leen koy wax wax na Bébé Diène Fourrière nee na ko waaw wax na ak Fourrière arbitre bi laaj na ay siisam ndeysaan arbitre bi sifflé na samedi 14 mars 2020 arène nationale journée Assane Ndiaye Baol production moo ñu fi woo diggante Fourrière Bébé Diène nañ xeex ba Ousseyn combat ba ña xeex ñoom ñaar combat bi amul round d'observation 19h47 la arbitre bi sifflé Bébé Diène ak Fourrière ña ngay xeex Ousseyn jàppante nañ ñoom ñaar. bàyyi ji kenn mooy sa mu nooyi. Abida Souf léegi ba fetali tàq Bébé Diène Fourrière eh, Bébé Diène am na client tay de Fourrière du ñeexu ñeppe sëgg na door benn uppercut Bébé Diène a ngi door Bébé Diène bëree la bëgg Fourrière daa bëggoon xeex ak moom ñoom ñaar xam na ni combat bi du yoom ñaari xale ku nekk daa bëgg a daan déclencher jëm ci kaw Ouzin muy Bébé Diène muy Fourrière Baye Jili Bébé Diène boo xoolee Baye Jili Bébé Diène doole ji ma yaakaar ne moom la andi ci ah, ñoom ñaa xaw nañu neexoo bàyyi ji li nañ nañu Ousseyn neexoon nañ ndax boo gisee bi ñu jàppantee rek ku nekk ñu pees moom tel na ko ah Fourrière doon na ko tànk Fourrière loolu mu def noonu baaxul Fourrière mii ragal naa ko bërëm bii am na bëre boo xamante ne mu ngi ci moom mu di ko nëbb moom Fourrière ndax ñu ci bari Bébé Diène lañ joxon favori mais Fourrière mii nekk na koo xamante ne Ousseyn ah nañ ko seetaan de bàyyi ji man daf maa bet moom Fourrière Fourrière mii baa ji li daf maa ndax dama foogoon ne bu bi siflee dindi loxoom seen diggante ñoom ñaar kii di bébé jën day tàq ci kawam gauche droite taqarnaase mais boo xoolee bi bébé jën tàqee mu répondre bébé jën xam na ne am naa adversaire tay baa ji li ne woon naa la combat bi du yomb combat bi mënul gaaw ñoom ñaar dañoo tolloo ñoo ngi dóor bébé jën ngi dóor suuf bébé jën a ngi dóor su yaay fi mu jàpp dafa baax daa bëgg mu sigi zongale bébé mais bañ na am na lu naaw. protestant ba protestant wu kan bi. Bébé Diène la Bébé ba. Bébé Diène yàpp na protestant. frère mi. sama xel na. ay loolu la. sama xel ñaaw na baa ñëw. combat boo koy seetaan. sama xel ñaaw na. ba mbër sax ki nga kan moo pare pour sax. <laughs> li Assane Ndiaye di wax ne ñu ay amateur lañ mais baa ñi ñun ay amateur lañ sama xel ñaaw na. dañoo xam lamb. sama xel ñaaw na. wari. xoolal Fourrière la def. am ku wari. Fourrière ngi jaay moom. ah xool. arbitre bi woowaat leen. arbitre bi sifflé na baa jiili. daan arbitre bi sifflé na. xeex. ña xeex K.O. K.O. ña xeex. Bébé Diène daw na <laughs> sama xol sedd na sama xol sedd na Baye Djily. lii <laughs> mooy tëj saison bi. Baye Djily combat bi mooy combat wu coronavirus. waaw waaw ma ne làmb xale. <laughs> maa gëm xale yu bëri. làmb xale. ndeysaan xale yaa ngi noonu eh, bu fi bañ a xeex nañ xeex bi ma ne Tenor bu fi bañ a bëree bi Ousseyn xale yaa ngi bëree baa ji lii moo tax ponkal yi namatuñu combat bu mag ndeysaan yaa ngi wane seen bopp baa ji moo du loo dongali rek su ma nee suba nga ne soq gaamu géy ndeysaan combat bu neex yàqu na eh, est ce que yàqu na baa ji lii waaw président joxe na décret combat mënul am suba baa ji li président waxul loolu ay Ousseyn bàyyi li ngay wax. bàyyi président wax la lool de. déedéet bàyyi li ngay wax ko ba bu ñu jàngi. activité yëpp la ñu arrêté lépp. loo xamante ne xeetu manifestation la président nee na nañ ko ci réew. Ah. fii ba la 14 avril. kon grand combat baa ngi noonu. te Papa Sow sax. njort nu ne dinañ am le 5 avril xanaa après. kon grand combat baa ngi noonu. combat bi nag mooy combat boo xamante ni sëñ Bas dañ koy bëre rek jubali aju. téye ci ba après yàlla def saafara réew mi saafara mbooloo mi réew ci coronavirus bi ñu dellu si waat fii ci arène nationale. bàyyi loolu soo ko waxee dag may tiital. ndeysaan na nga noonu bébé Diène Fourrière. coronavirus bi ngay tudd. ndeysaan bàyyi naa ko kon. bébé ngi jàppante bébé tey daa am client bébé Diène nam daan dirisé la daan wax sa taak sa koñ et sa gañ. waaye tey am na adversaire moom Bébé Diène. Fourrière xale la boo xamante ne Ouzin dafa am concentration ci làmb mais Fourrière ni nga koy gisee dafa sérieux fàqat na ko Fourrière mbaa lu mu nar Fourrière lu mu nar. Bébé Diène li mu def léegi baaxul. Fourrière mi simil naa ko sàppo Fourrière la ma waxoon ci combat bi yëpp gis naa ko. ne na ma ndiis bi ndiisam la buñ koo ko joxul da koy jëlal boppam waaye xaw ma dina ko jëlam déet waaye mu ngi ci tànk yi muy jëlee ay ndiisam. wax na ko de. du ñeexum ñebe benn xale moo fourrière mi ma gis nii. sama papa Kayre jug na sées bi. daa defati mën a nem su andee ay xale da leen teg ci xolam bàyyi ji lii doom dafa sax ci xol ndax boo xoolee kii di bébé Diène Diène Kayre doomam bi bëre tudd Diène moom la bébé Diène duppee boppam daanaka doomam la te gis nañ ko moom saa bu doomam di bëree du ànd ak sagom du seetaan sax làmb ji donte moo toog ci saison waaye bu ñu ko teewul dina dugg ci digg géew moom moom Boy Kaïré ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax xale yaa ngi jàppante baay ji li Ousseyn xale yaa ngi jàppante Bébé Diène da ànde ngeñ di ko déglu combat bi nag bu yàggee damay ragal du avantage du Bébé ndax bu plaqué na ko Fourrière day bañ Bébé Diène combat bi du combat bu ñuy forcé combat la boo xamante ne dañ koy cons ndànk-ndànk Fourrière a ngay dóor ma ngay dóor Fourrière frère mi li ma gis si combat bi est-ce que gis nga ko Baye mooy lan Ousseyn ñoom ñaar boo xoolee dina man gis naa ci ku xaw ëpp doole ci ñoom ñaar ah Ousseyn loolu kan la du ma ko wax man da damaa jàpp ni ñoom ñaar ñoo tolloo doole fi mu toll nañu seetaan Baye Djili nañu seetaan Baye Djili doole ji am na fu muy feeñee jege nañ saako yi daal xam naa ni ñoom ñaar coono ngi commencé dugg Baye mbër bu yàggee tuuti dina am ku bàyyi ñoom ñaar. bébé dugg bàyyi jiili. bébé jéen a ngay pompé Ousseyn. coono nga commencé dugg bàyyi jiili ñoo ngi jàppante ñoom ñaar. ndeysaan li ñu bëre nag dafa yàgg. combat bi. ndeysaan ñu ngay bëre ñoom ñaar. ndeysaan fi mu toll nii. bëre nañ seen ña ngay bëre bëre nañ juróomi minutes yoo xamante ne amul taxaw. dañ koo attaqué rek dalante ñoom ñaar. dóoral ma dóor la ñu doo jàpp. bébé jéen a ngi koy puus. bébé jéen a ngi puus fourrière. fourrière yi jàpp di ko déglu Baye Djily Bébé Diène dafa war a taxawaat dafa war a taxawaayam jàkkaarloog Bébé Diène jànga jàkkaarloog fourrière joxaat ko cër bi mu am ndax boo xoolee Baye Djily moom mii di Bébé Diène damaa gis ne joxul cër fourrière te da ko war jox cër xam ne adversaire la am. waxoon naa ko Ousseyn avant combat di commencé nee naa fourrière mii ma gis am na benn concentration boo xamante ni mu ngi koy jox combat am na respect bu mu jox adversaire am Bébé Diène bu ko ko mbetteel mun na am ci combat bi gis nga Fourrière. Fourrière fi mu dóor baaxul. arbitre bi day dóor baaxul. ah àtte ah, waaw waaw fi mu dóor baaxul. Fourrière dóor du dóoru kaay dóor. arbitre bi da koy tere. président Alioune Sarr koy aaye. Ousseyn loo ci mën a dégg mooy xale yi bëre nañ bëre bi neex na xeex bi neex na. xaw ma lu leen fay de waaye jar na ko ñoom ñaar ñi. Kayre dugg na ci biir lu mu bëgg. sama papa Kayre daa bëgg a dugg ci biir géew bi. Bébé Diène ngay tekki nga waxoon coono daa dugg coono daa commencé feeñ ci làmb ji bàyyi ji lii ngay tekki sengoor yi léegi sëriñ bi am lay <laughs> waaw waaw léegi sëriñ bi na ko sengoor ba ma la joxoon lu munti xew waroo koo tekki <laughs> tax na ko mu dem ba Casamance yii mu jëlee Crissa tool maa ngi nuyu sama waa dëkk boobu di waalo est-ce que demul waalo sax moom mii Bébé Diène mun na jëlee sax baambay dëkk Sëñ Bass Bambey Jurbel Jurbel Bambey taaxu la Bambey commando sama ponkal mi kenn moom lamb daal a ngi noonu bébé Diène baa ngi noonu di dem ñoom ñaari xale yaa nga noonu ci làmb ji bébé Diène Fourrière arbitre bee ngi noonu di wax ñoom ñaar avertissement Fourrière nee nañ ko fi nga dóor waroo faa bi sifflé waat na Ousseyn Ndeysaan ak ki nga xamante ni mooy bébé Diène. bébé la ma la waxoon moom lay def. ah lan la. waaw une observation ci làmb ji ndax jàppante nañu ku ne xam na sa morom la muy saf ku ci nekk di nga taxaw déglu lii combat bi ba mu leer nga doog a dem bàyyi ji noonu la demee Ouzin combat bi ba mu leer fi mu toll nii ñu dem ñoom ñaar ku ci nekk day téewaat boppam day téye boppam ndeysaan ñoom ñaar ku ci nekk day téye boppam ña nga ca combat bi. Fourrière Bébé Diène xale yi bàyyi ji la ñoo tolloo doole eh làmb. dañoo tolloo bëre ña ngay bëre. tolloo nañ doole ña bëre. mën na ko cay làmb. soo làmbee daj mu neex. cokkaas na Bébé Diène cokkaas na Ousseyn. Bébé Diène Bébé xale yaa ngi ci digg géew bi ah, ah Assane Ndiaye woo su ma suma ma su ma neexee ma ne saison bi day pause. ña ngay dóor dóor mu daanu mbaa du am ña xeex dóor mu daanu mbaa du am dóor na ko jël na ko ña ngay bëre ña ngay bëre ma mbaa du am do protestant ah, bébé Diène ma ngay yàbbu protestant bi rek ah waaw lii baa ji lee sax xale yi tàmm leen sol protestant bu ñuy am déedéet bébé Diène moom li simi yàbbi protestant bi bari na loolu ñoo nga noonu dem na ci cimikaay bi Bébé Diène a nga noonu degal nee na supporter Fourrière yi kaay leen ña ngay xeex xeex bu metti ñoom ñaar mais bàyyi jili Fourrière lim xeex leegi teg ko ci dëgg teg ko ci yoon non daa dóor ku Bébé Diène bëgg a jël tànkam mu daw def rotation dawul pour génn làmb ji mais daa pivoté Ousseyn pivoté bi jaar na yoon de loolu nga gis man pour man de ragaloon day bu bu continué woon tuuti bu duggee ci axe Bébé Diène Bébé Diène koy dóoraat beneen coup bu daloon day daal mais est-ce que xam nga ne xale yi dañoo privilégier xeex bi waaw dañoo privilégier xeex bi oh. xale yi dañoo ñemente ñoom ñaar xaw ma la moo nekk seen diggante waaye règlement de compte am na ci mooy ku ci nekk li ma la waxoon sànq Ousseyn kii mbëru gox la kii mbër gox la kii dëkk Grand Yoff kii dëkk Rëbës ku ci nekk daa bëgg a génn te pour ñu génn combat bii mooy seen baa déclassement ndax damaa xam ne ñoom ñaar mën nañoo bëre mais ba léegi bërëb duñ ko jël te kon nee ñoom ñaari xeex moo tax ma ne ma ma ne am na lu nekk ci biir. Bébé Diène. Fourrière fi mu toll nii Ousseyn mënatul def dara. loxo yi gu coono daa dugg baa ji li waxoon naa la ko. bu ñu lewtoowee jàppante bàyyante coono dugg na. Oh. Fourrière dem na ba daa wàccee garde bi. ku bu ko dóor day dugg. Bébé Diène tamit bu jeexalul woon am na nu muy attaqué Fourrière mu dóor mu daanu sax mën na ci combat Baye Djili Fourier pare na ci làmb ji. pare na waaye bébé jën bébé jën tamit Ousseyn sonn na de. oh bébé ko léegi ku ci biir bi ñoom ñaar joxe nañ lépp lu ñu amoon Baye Djili ñii desalatuñu Assane Ndiaye da amateurs kontaan nañ supporters yi seen xol sedd na. en daal xaw ma kan moo ñemee wax mystique jàpp na ma waaye du ñaari mbër yi ña ngay xeex doorante nañ jàpp na taxabal bi bañ na bébé jën taxabal na ko bañ. oh ndeysaan mu ne lan sëñ Bas. jàpp noppalu rek. mooy laa bu ji fi ah, ñoom ñëpp sonn nañ kenn ñemeetu la jël risque dañuy jàpp noppalu rek ku def faux pas daan la buñ ñu defut faux pas ñu buuxante dem ba ci saaku yi tafu. mot na ko mot na ko bébé Diène mbaa du mujjee jaay combat am Fourrière xoolal tànk ba fam koy teg waa xale yi lu ñuy bëree sëñ Bas ah Ousseyn xoolal ma xale yi la ñuy bëree. waaye jii coono daa dugg. mais boo xoolee ñoom ñaar ba tey am nañ résistance kii di Bébé li muy def di ko forcer na ko oytu ndax kii di Fourrière néewul doole te xam naa ne am na résistance Bébé Diène jox cër adversaire am moom Baye Djili Bébé Diène man de li jaaxal oh Bébé tur jël bi lu may jox rotation naag moom lan la Balla Balla Gaye Ousmane Diop daa wàcc fractionné daw tuur ko moom mii di Bébé daan na ko jël daan na Fourrière Bébé Diène daan na Fourrière jàpp na ko rotation ko mu daanu ci suuf sonn daa sonn Fourrière daa joxe am Bébé tamit sonn na waaw lamb boo moytu mbër dina fi faatu ah. xoolal Fourrière coup yi mu jël coono gi mu sonn ci lamb ji daanu na au lieu que coach bi ñëw si moom jëm koo soutenir xool lan moo manqué ci moom bu dee ndox la ñu renforcer ko jéem koo yëkkati mais dañ koo bàyyi mu daanu di forcer di yëkkatiwaat boppam mais athlète da nga koy jàppale ba ba muy jeex même bu ñu ko daanee dawal gaaw yaa war a njëkk ci assiste ko war a koo bàyyi moom muy téye boppam. jërë ngeen jëf mbokk a ngi noonu ndeysaan bëre bi bëre bi Bébé Diène bëre bi lan la sant yàlla tay gis naa paskaay xale la duñ ko teel a limal mais moom ci kaw rek te gisagu leen dara parce que nangu na entraîné il est sérieux de combat bi daf ñu jaraloon lu ne parce que premier grand combat am la dafa amoon dafa amoon dafa amoon importance ci carrière mais nañ leen dem ci kanam ngeen comprendre écurie Soumbédioune Soumbédioune di ngeen gis beneen écurie incha allah. perkay li ma jaaxal. mooy li ma su soo xale yi di bëre. doo toog doo taxaw maa la gis yaa ngi jóg yaa ngi toog. yaa ngi def lu xale yi ñoo xale bëgg. ma ma def leen ko sama comme sama ay doom ay complice lañu man ak ñoom moo ta suñu bëree man du ma du ma toog ay complice lañu. mais père boo leen fekkee sax day mel ni wax ñoom ñoo ma jur. waaw loolu moo xam nga <laughs> mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo ci li nga xamante ne mooy combat bi dox ci diggante Bébé Diène ak Fourrière Ousseyn gis nga ni combaa bi demee. bàyyi jiir xale yi bëri nañ bëri nañu xeex nañu kii di kii boo xoolee dafa dem ba ci biir làmb ji mu xaw a jeexal moom Fourrière moo tax boo xoolee am na résistance mais làmb ji Bébé Diène dafa mel ni moo gën a am coffre tuuti ndax boo xoolee dafa dem ba ñu dañoo jeexal mu mel ni ku ko fàq ba muy jógaat mu daw mu daw flexionné pivoté dóor ko man moo xoolee kele boobu dafa sama xel day dem ci Balla Gaye Ousmane Diop bàyyi jiile jël bu rëy la ko daan moom Bébé Diène daan na Fourrière carrière Bébé Diène lan la nañ ko bàyyi xel xale la te daa bokk ci làmb boo Euh, waa Soumbédioune dafa am fu ñu ko teg te moom gëm na loolu ndax boo xoolee lu simple yi chaque jour da ciy dem di si participer mbër yu mag yi bàyyi leen ko xel ku ko ci mën a jël na ko jël léegi su doole ji yokkoo xel mi yokk xel xel mi su doole ji yokkoo fit bi yokk xel mi daal du neex a jëflanteel bàyyi ji li Fourrière tey wane na leneen loo xamante ne ndeysaan ñàkk a ñëw rek mu ñàkk waaye jàmbaar la ndax euh, wane na jom wane na fula wane na fayda ba keroog muy ñàkk làmbam kenn du ko wax acim moom Fourrière la waroon ci làmb ji def na ko bi mu simee ko képp ku àndoon moom soxol sedd na. abi bi sifla na teggi abi bi teggi na loxoom seen diggante mu dox dóorante ak moom bëre na xeex na mais il n'a pas de mérité na dem defaru di waat takkaat ngemb yi takkaat jaaj yi dugaat ci biir géej gi wutaat doole te waajaat ñëw làmb jeexul baay ji li ngeen jëf mbokk yi làmb jeexul dégg ngeen li nga xamante ne moom la Ousin wax mbokk yi noonu leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqalikoo ba léegi incha allah ci beneen xew làmb jërëjëf Ousin jërëjëf Baye Djili kontaan nañu Basiru jaajëf aja